li ñuy wax ne l'enjeu de cette élection n'est pas dans un affrontement partisan enjeu élection bi du ci xiiroo du ci ŋaayoo du ci fantasiroo benn noon lañu am te xam nañ ko mooy jafe-jafe askan wi noon yooyu noon boobu nag dinañ ko dinañ ko ràññee dinañ ko xàmme dinañ xam nan lay nan lay manifesté woo ba nga xamante ni bés bu ñu amee li ñu bëgg moom dinañ ko tudd te dinañ ci def lépp loo xamante ni mën nañ ko ci ngir mu saafarawu élection bi ñu jëm élection parlementaire la élection législative la élection législative assemblée nationale lan moo ko tax a jóg li ko tax a jóg bokk na ci dogal boo xamante ni nguur gi jël na ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem assemblée nationale ñoom ñoo war a saytu su nguur gi ne def naa fukki milliards ci assainissement Touba mais ñiy dem député yi nga xamante ni ñoom ñooy dem assemblée nationale ñoom ñoo ko war a saytu xool ndax fukki milliards yi ñëw na wala ñëwut wala ñi ñu ko jox ki ñu ko jox muy ministre bi wala DG yi nga xamante ni ñoom ñoo ko liggéey ndax indi nañ ko fi wala dañ ko def ci seen poche loolu mooy liggéey loolu mooy contrôle de l'action de l'exécutif beneen bi mooy nga évaluer les politiques publiques politique publique yi mooy tey ji ñaata ci xaalis moo génn ñëw ci ndawi Touba ñaata ci xaalis moo génn ñëw ci jigéenu Touba ñaata ci xaalis ñoo génn ñëw ci infrastructure maanaam wàllu tali hmm, wàllu école lan moo ci génn ñëw fii su boobaa yow yaa koy évaluer en tant que député yaa koy saytu yaa koy évaluer xool ndax ñëw na wala ñëwut su ñëwul nga wax nit ñi ne leen ñëwut ndax yow foofu nga toll parlement la mooy foo xamante ni dañ fay ñaxtoo dañ fay taxawale dañ fay waxale li nga xamante ni moom mooy askan wi yonent bi salaatu wa salaam dafa waxoon loo xamante ni ci loolu la ñu nekk dafa wax ne boo gisee loo xamante ni naqari na la na nga ko dindi ci sa loxo soo ko mënul na nga ko wax ci sa làmmiñ soo ko mënul nga mitit lu ko ci sa waaye boo mënee dindi ci sa loxo ne da nga koy wax ci sa làmmiñ su boobaa daan yi dina dal ci sa kaw soo ko mënee wax ci sa làmmiñ ne danga koy métti sa xol bu boobaa daan yi dina dal ci sa kaw donc ñun fi mu ne nii wax ci suñu làmmiñ foofu lañ toll dinañ ko wax ba ñëpp dégg ko Macky Sall de wax dëgg yàlla mooy président du Sénégal waaye sama liggéey sax mosumaa yóbbu ci ma gisanteeg moom mosumaa gisanteeg moom mosumaa toog ak moom benn yoon laa ko mës a séen mooy bi Ousmane Tanor Dieng wàccee liggéey te comme Ousmane Tanor sama wëllëre maam la woon ma demoon ca aéroport international Blaise Diagne AIBD pour taxawu li nga xamante ni euh, pour pour gunge euh, Ousmane Tanor ngir ñu jébbal ko boromam. boobu laa ko seen mooy bi mu ànd ak Ibrahima Boubacar Keita ma toogoon ci présidium bi dama koo seen rek loolu laa am ci moom yéen li ngeen am ci Macky sax man aw ma ko ci parce que bu ñëwee fii yéenee ànd ak moom di ko gunge jege ko lool man loolu jegewu ma ko yow mii di ma posé question bi yaa ma gën a jege président de la république donc jegewu ma ko nii de près nii de loin askanu Sénégal ñoom ñoo nekk ci suñu ginnaaw ñoom ñoo ñuy jàppale boobu ba tey ñoom ñoo ñuy taxawu askanu Sénégal yi nga xamante ni ñoo jël seen i dërëm seen i ñaar jox ñu ko askanu Sénégal bi nga xamante ni ñoo feeñal seen yéene pare nañu jox ñu seen parrainage fu nek ñu joggé fa ci Sénégal ak bitim réew légui lay jot ay image yo xam bitim réew lu joggé ño xam dañu bay seen liggéey tal seen auto di ñu campagnal fofu nga xamanteni mom moy dans la diaspora donc ñoñ mënu ñu leen fay ñoñ ñoñ ñoom ño nek ci sunu ginnaaw ndawi Sénégal nak dama leen koy wax kenn gëmatu leen en 1968 Senghor dafa jakarlo euh, ki Senghor amatul ci ñom ci ñom pexé ak ñi fi nekkon bobu jël leen duggal leen ci kasso bi yobul leen service militaire obligatoire Mamadou Diop Decroix mi ci la bokkoon en 68 en 88 Abdou Diouf parle d'une jeunesse malsaine parce que amatul woon pexe ci ñoom te réewum ndaw la réew mi li fi nekk ci ndaw téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ay ndaw lañ juróom-ñett fukk yi amu ci seen i at moo ngi toll ci ñaar fukki at ak ñaar fukki at ak 80 en 20 ans et 25 ans tey jii euh, bi Abdoulaye Wade ñëwee dane milliards yu ma bitim réew du jox samay ndaw yi réew ñoom ñoo ma ko gënal mais ñun ci ndaw ñooñu la ñu bokk te tey jii ay ndaw rek la ñu àndal te ndaw yooyu ñoom ñoo ñuy jàppale ci xam-xam ndaw ñoom ñoo ñoo ñu jàppale ci ite yàlla defal ñu tawféex nag ay mag di ñu gunge ci liggéey boobu donc li ñu wax ak kilifa yi bokk na ci ndaw ñooñ ñu sàmm leen taxawu leen xam ne seen àdduna lañ ko war a tabax ci xam-xam ak itte ak itte ju mat sëkk ak teggin yu mat sëkk xam-xam itte ak teggin sunu lépp ci loolu lañ ko teg te loolu moo dëppoo ak njàngaleem sëriñ bi loolu moo dëppoo ak yitte yi nga xamante ni loolu la ñu sëriñ bi jàngal li ñu bëgg ñun di ko wut li sëriñ tuubaat tontu woon ci xaaloo liyer kan bañ ne ko xaaloo liyer kan li abwaabi salaatiin la mu leen tontu woon laa leen di tontu ñun li ñu bëgg Macky Sall mënuñu koo jox aji kawe ji lañ koy laaj muy sunu borom subhaanahu wa taala nar koo jaare ci li nga xamante ni moom mooy askanu Sénégal.